Hey, Ragnar, go! na

Lord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 oh mboot ba ñoom ñoom ñaar ñëpp ñaari mboot kan lañ eh Papa Ndiaye eh Petit Sélé eh ah quel combat ak ngi ak Kor Ndiaye moom laa fi gis tey laa ilaaha illallaah ñoom ñaar ñëpp joxe nañ laa ilaaha illallaah gaay si bu dee bu kontaan ay mbër yoo xam ne dañu leen gaaw a génn si pool bi Petit Sélé lu may adversaire am sànq dafa moom Petit Sélé jaasi Paul am na ndam sànq at bi suuf la ak aldemba bu barñi jaasi pël aldemba jaasi moo ngem moo ngembul vert li aldemba bu barñi moo ngem moo ngembul ñuul li moo ndaamali première demi-finale lese aldemba ak jaasi aldemba bu barñi ak jaasi deuxième demi-finale Volcan ak Petit Sélé diggante diggante Aldemba Aldemba bu Bargny ak Petit ak kii Diassy Peulh waaye Petit Sélé ak Volcan beneen demi-finale bi daw na jël ko Aldemba jël na ko ma ngi koy mbot ma ngay mbot jaasi pël daan na ko Aldemba bu parñi daan na jaasi pël Aldemba daan na ko Aldemba bu parñi daan na jaasi pël première demi-finale bi xoola jaasi pël ma nga ca géew ba daa waaru jaasi pël war na ñàkk léegi am ma koy waaw Gourdin bañ na Souley xar na ko ba koy loo ko jaxamal Elhadj Ndiaye ma ngay bañ daan na ko wala lu xew ànd nañ ñoom ñaar naani café ñu xaar lu am bi ñuy wax Elhadj Ndiaye ak Kaw Goundé. ndax ku nekk di xool kan mooy sa mbër ak kan moo mën diggante Elhadj Ndiaye Kaw Goundé. Kaw Goundé Gaaw pour ne génne waat ko Wala jaay Gaaw pour ne ñoom ñaar bëri nañ combat bu metti de Thank you. diggante Sélé ak Boy Faye Aziz Ba Boy maa lay bëggee ci loo nekk ci jàmm ak Boy ñaari mbër yaa nga ca Sélé-Mélé Boy Faye Boy Faye Sélé-Mélé Boy Faye Sélé-Mélé ca saaku ya Boy Faye ba doo génnaat Boy Faye ak Sélé Sélé ak Boy Faye gis nga mayante wuñ ma ne ko ñii est-ce que ñu ngi Kapaba sa ñaari mbër yi daa mel ni dem waaw moom Kapaba la. waaw bëgg gàddu affaire bi yóbbu. Sele Mele. xaaj mise bi ñaari yoon bàyyi ko fii may ko Abdou Sele Mele ak ak Sele. ak Petit Sele waaw. waaw macha allah na solo. mais daanaka nag la Petit Sele dajal. waaw. Balde bii. al demba bu baax Bargny la. dafa leer. daanaan la première ko bëree. waaw jël na ko am. aka leer. naa ko Iba Mar bu yàggul dara mu ñàkkee quart de finale. Ah, ah, ah. kon koy topp Alfali. yaa ko waxoon. yaa ma ko waxoon. waaye général Malika. El Hadj Ndiaye. arbitre toogal waay. général Thiatou Aïda. daanaan la dajal te du maye dara. waaw mooy Thiatou Aïda. waaw moom mu jël daan cérémonie fële ca campement Ngego. waaw gis tey ñoom ñaar. doomu Joal la. doomu Joal la. rakki mbër la. rek rek El la. kenn du moom. naanaan la ak Habib Ndiaye grand champion na jël ko. waaw waaw général Malika. moo leen wan ginnaaw. El Hadj Ndiaye bu la neexee nga ni caatu Ayda. waaw waaw. chéri ami collège. borom diggante général Malika général Malika Thiatou Malika Thiatou Aida daw nañ jëlante général général ma ngay wut a jàpp ba pare xañ ko mu jàpp général am na ngemb léegi. général Malika Thiatou Ayna na doon ko kot file jargandaloo ak moom Thiatou Ayna na daw jàppaat ñaari xale yaa ngi ca général Malika El Hadj Ndiaye wala nga ne am na loxo. daw na ko général bañ na wala nga ne El Hadj bañ na. diggante El borom Joal. borom Malika. rakku Zal Ndiaye ba. wala nga ne rakku Habib Ndiaye. <laughs> général borom Malika. <laughs> Mele moo finalu ak Petit Sélé. Sélé Mele dem na final. Petit Sélé dem na final. yaa na leen yàlla taxawal ca. daw na jël ko maa ngi koy lonk El Hadj Ndiaye bañ na maa ngi koy bëtt général a ngi koy bëtt ko bañ na général Malika El Hadj Ndiaye. général Malika Elas Ndiaye général Malika Elas Ndiaye général Malika Elas Ndiaye général ma ngi koy. arbitre toogal waay arbitre. général ma ngi koy forcé Elas ma ngay bañ lonk na ko da nga négocier daan na ko général Malika daan na général Malika. Malika Malika on sera demi-finale on sera sera ñoo finale <laughs> waaw Sarr. mbokk yi ak lu naan Sénégal ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziar bu a baax di leen jox seen wàccuwaay di jéggalu ci guddee gi Abdou Mbaye Diop ànd ak Sarifa production tey di première édition lépp loo xamante ni def na ko wàccoon na ak moom. salaamaaleykum waa région de salaamaaleykum waa département Tivaouane maa ngi nuyu kenn ku nekk sa ak sa sant di leen bëgge di wax ni tey moom fierté lañ am ci bis bi am fii tey stade municipal Moustapha Niang doon fee tëgg làmb teg fi mise bu mag sunu doomu ndey Masila Diop dëkk fii ci kër Bakar man sama àdduna dama naan gën a jige gën a yey laay àndal Masila nekk sunu deret nekk doomu gox bi chaque jour mu ni ñibbi naa Kajoor kon bu tëggee làmb sunu xel ci moom lay jam bi ko woowee dañ ko doon woo ni ko masi la combat bi ñoonu mën a booleel mu ni Abdou may du ma la boole kenn lépp lu ma soxla jël naa ko kii Aliou la moo fi représenté masi la jóge ba Kër Bakar ànd ak ay doomu ndayam Ndongo Diop Mbacke Diagne grand Pape Samb ah sama soxna si di waaw di ziar sama grand sœur du Tako. jàkkaarloo caméra yi Ablaye Diagne di nuyu sama grand Ada Ndiol di wax ni ñoom Saala sama gars yi yéen ñëpp maa leen di ziar a lim ñëpp ndax man Kër Bakar laa am Kër Bakar mën naa ni fa laa yaroo ndax fa laa sama étude kon nag drapeau bi delloon naa ko mbàtt ca Ndala Kër Baye Gomaay am bis. première édition bi mu tuddee ko Massila sa digganteeg Massila. waaw sama digganteeg Massila dafa mel ni dama naan yàggul man ak moom ndax danoo créé woon 100 pour cent Massila nekk ci biir ànd ci ak ñun liggéey bi ci la xamee suñu tur ban ñi may jël drapeau di ko tuddee kon vraiment mention spéciale à Massila Diop waaw. ñu gis ñu nekk ci période su campagne nga am surne bu toll nii ñu gis tey leader yi nekk fii tuddee woo leen ko nga tuddee ko Massila. waaw xam nga tey ji man naa ni Massi la sunu mag la sunu garaa la moo tax ñu def lii xam naa parrain bu mag bi mooy dugg si noonu Baye Kara dama koy may après incha allah rabi mu ñu jox ak grand Aliou waaw kon ñu ngi ñu ngi di kontaan vraiment rek di ñëw tey fii di. bokk ak mësi la bisam bi waaw comme moom yàlla dogal na dafa am ngànt mu yemaloon nu ñu ñëw pour représenté ko rek parce que suñu doomu ñoo bokk lépp ñoo foodoo ñoo defa lépp waaw mu amoon ngànt yemal nu maag délégation bi comment yi présenté sànq ñu ñëw fi ngir vraiment teewal ko drapeau bi waaw bisam vraiment bis ko waxee di ñaan nag vraiment mbëri àggale ko si jaamu ko ak ko yi rafet na bis bi rafet na waaw lépp rafet na daal. dara après mën ngeen ñëw fee jël interview. waaw waaw. yow la. final waa Ndefleng. waaw Fokole Seereer in way no final fe dox den ref petit ka andoona yee a ndedu soixante-dix-huit heures wala meek den fo Aldiaba Petit Sélé fo ndeysaan petit sele fo Aldemba o ga nga petit sele ke ndefo ndefo nga sele mele yaam sele ten final ona poids lourd ke to gara final ona poids léger ke den petit sele fo Aldemba ne final poids léger Aldemba petit sele petit sele o defa la ka me final o defa la ka me diggante Algéba ak Petit Lo Algéba bu bari ñu. final baa ngi noonu. vidéo mooy indi Petit Sélé bien dama bëggoon d'abord euh, féliciter Abdou Gomaay ak euh, Salifa Production ci lii nga xamante ni organiser ne ko pour la jeunesse de de Tivaouane la jeunesse de Tivaouane la ko organisé ndax j'ai découvert que ni jeunesse bu bëgg làmb lañu moo tax bi mu ñëwee mu ni ma man jeune promoteur la fu nekk dama fiy dem ci Sénégal te bëgg naa li may gis feneen ma gis ko fii ci biir ci Tivaouane te ñi nga xamante ni ñoo war a jóge fu sori ñëw di bëri si pour ñu encourager leen monsieur le maire ma la doon ñaan ma nga fexeel ma ba ma am ci grand combat bi un million bu ma jox kii daan cinq cent mille pour ñi nga xamante ni ñoo nekk poids léger ma ni ko loolu bu fekkente ni seen bëgg-bëgg la du ma def lu dul ànd ci ak yéen loolu moo waral euh, pour encourager ko pour encourager également ñi nga xamante ni làmb moom mooy seen passion ci biir dëkk bi ñu accepté parrainage bi ànd si ak ñoom boobu ak tey ba yàlla def bés bi ñëw lépp rafet alhamdulilahi rabil alamin donc comme je l'ai dit moi j'ai pas de passion ma passion c'est la passion de la jeunesse moo tax lu jeunesse Tivaouane bëgg man dama ciy ànd ak ñoom mais jërëjëf noonu noonu nga ko waxee noonu la la amee mais man tamit ma profiter ah souhaiter une bonne chance amoon na ami Cheikh Issa Sall. Mhm. yàlla dogal na man ak moom sama sama sama sama collègue la sama camarade la. bokk nañu dëkkandoo jàkkaarloo kër ñeenti at mu nekk sama xarit yàlla na ko yàlla defal ndam ci mairie boobu mu bëgg ci Mbour. Mhm. <coughs> mu nekk directeur général du ADM. Mhm. Euh, <coughs> le 23 janvier waa Sénégal yëpp dañoo war a xalaat d'abord que ni am na après le 23 janvier. maanaam bu ñu voté élection yi ba pare lii xew si yeneen dëkk yi. dañuy ñaan yàlla bu mu xew Sénégal yàlla bu mu xew Sénégal ci biir campagne électorale en tout cas ku jël exemple ci ñun doo xeex doo xuloo doo wax lu ñaaw li ñu bëgg bu fekkente ni dëgg la si ñun muy taxaw suñu dëkk li ñu bëgg muy taxaw suñu askan du jar xeex du jar du jar xuloo fii ci Tivaouane nag comme ni nga ko waxee ah fi lañ juddoo fi la ñu màggee amuñu lu dul euh, Tivaouane wax nga dëgg stade bi leer na parce que lii mooy suñu première réalisation bi yàlla defee ñu nekk maire bala ñuy def ñetti weer taal nañ projecteur u stade municipal Tivaouane mais dafa mel ne nag suñu destin yàlla daf ko lié ak sport ak stade bi ndaxte suñu dernière réalisation mooy également la pelouse du stade li ci diggante bi yëpp si diggante bi la ne mais on commence par le stade et on termine par le stade municipal kon le boobu defe naa ni Tivaouane ak li ñu gis gannaaw bi ñu président de la république tànnee gannaaw bi ñu xadara maam Cheikh Seydi Hadji gannaaw bi nga xamante ni population Tivaouane gis nañ li nga xam ne liggéey nañ ko ci Tivaouane ba pare ñu gis li ñu leen di proposé suñu magistère bi di ñëw am nañu yaqin bu wóor que ni incha allahu taala nit ñu ko yéenee ndam li coalition Benno Bokk Yaakaar bi ma jiite dinañ ko jëlaat incha allah taxawal liggéeyalaat nag waa Tivaouane lu ñu leen liggéeyaloon benn ñu liggéeyal leen ko fukk. gis nga ñi ma àndal kii mooy le deuxième adjoint au maire de Tivaouane Gora Mbaye monsieur Lamine Tivaouane bi nga xamante ni depuis ñu nekk ndaw ñoo ànd ba tey ñun ñoo àndaat ren ci la grande coalition pour jëlaat ndam di jëmale Tivaouane kanam. général Malika ak Sénémene lese bi ak Demba bu bari moo ko jël waa lese bi 500000 loolu 1 million général Malika moo génne demi final Thiatou Aïda waaye. Sénégalais génn Malika. général sama xale booy fay général Malika gemo gemo wala nga ni ruus wala bal na ko dëpp na ko naam sele naan na ci diggante général Malika Sélé Bélé daw na jël ko Sélé bañ na arbitre général Malika la muy fële xel man sa mag général Malika général Malika Sélé Bélé général bu Malika ak Sile Mbile. waaw dem na waaye Sile da ko am tur. arbitre amul yàqalaate waay. général Sile Mbile. arbitre demal beneen côté. loolu moom du bañ. donc Dua. moo ko jëndoon pour deuxième match bi. maanaam final bi mayu la. final bi may bàyyi nañu kii bi noonu. Général Malika Sélé